léegi maa ngi seetaan vidéo yi mënuma ci jeexal benn message bi pour jigéen ñi la encore jigéen encore xaalis encore nit ku ñuul bu ma kenn ne baara looy jooy yow mi di ma seetaan imaginal nga jël benn minute nga nekk ko ci palaasu sëñ bi ñu nar a yàq adunaam wala boobu bi ñu yàq adunaam ba pare ani sutura ani sutura ani suturalante doomu aadama yi a ñun ñu suturalante si suñ biir pour yàlla mën ñoo suturaal bu ma kenn ne baara jooy xalaatal nga nekk ci place sëñ bi benn minit naka lay xoolee taalibe su jógee ci li naka lay siggee di xool njabootam ay soxnaam ak i doomam yàq ngeen adunaam. ani sutura yow mi njëkk ci téléphone bi yow mi njëkk ci audio yi ak vidéo yi ana nañ ko waxtaanee xanaa topp leen woon sëñ bi te yàlla tax ana nit ko dul juum sëñ bee feeñ de am na yoo xam ne bu génnoon dëkk bi yëngu. vidéo yaa ngi ci téléphone yi bu génnoon dëkk bi yëngu bu ma kenn ne sëñ bi bi mu koy def xalaatu toon man waxuma waxu sëñ bi mais dama ne être humain lu tax duñu suturalante laa lii nag war naa yee ñu baree bari rawatina ñi nga xam ne ñoo jiite mbooloo yi moo xam ngay sëriñ bu ndaw moo xam lu mu ci mënta doon rek war ngaa yeewu war ngaa tirer leçon ci lii parce que am na ay doomu aadama yoo xam ne ñu ngi ci sa pegg ñu ngi la dar matin midi soir sa defet la ñuy xaar pour ñu mën a écarté wu te fii la doomu aadama bi di soxlaa nit ñi bépp taalibe boo xam ne toppoon nga sëñ bi mu di la jàngal yàlla wala mu di la jàngal sëriñ Touba te yàlla rekk tax gën koo jege bul xool li nga xam ne bàkkaar la bu mu jëf digganteem ak yàlla déedéet xoolal ci jëf jim la daan jàngal parce que nit ku dul juum amul amul ku dul juum amul lii metti na ma ba ci kanam yàlla naka la ay doomu aadama di weerante ci internet bi di santasante loolu séq ak nit teg ko ci internet bi yaa ngi xaar bis bu ana ñu ko doon seqal lu tax ñu dem ba yëf yi yeeg si fii lu tax teeluñ koo dénoncé ak ñi nga xam ne ñoo waroon sëñ bi naan dañ koy waas xoolaal leen seen bopp bu baax yéen.